wajalilaayi maskani dëkk bu sell bi di Touba ni la daan mel ci jamono yi ñu weesu bu timis xasaana maase de lëndëm kuruus muy mbooleem quartier yi nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi ba ci yi nga xam ne ñoo gën a jege jumaa ji mbedd yi marché yi fépp lëndëm ba ci mbooleem yoon yi nga xam ne oto yi dañ ciy jaar noonee la mel lëndamaay googu bokk ci li nga xam ne moo yokk insécurité bi ci dëkk bi li nag waa Touba ca kanam ne mekk ko ginnaaw projet naatal Touba ak ndam liñ ci am ñu indi beneen projet bu yees muy leexal Touba projet leeral Touba li ko jiitu waa Touba ca kanam defoon nañu ay sensibilisation ci dëkk bi waxtaan ak mbooleem borom kër yi kenn ku ci nekk taal benn lampe ci sa buntu kër ginnaaw bu timis maasee ba bët set nga fay ko. def ko àddiyey Serigne Touba ngir wàññi li nga xam ne moom moo di lëndamaay bi ginnaaw loole ci la kilifa yi nekk ci Touba ca kanam waxtaan ngir trouver beneen solution boo xam ne dana gën a mën a leeral dëkk bi yépp gannaaw bi ñu amee xalaatub yaatal làmp yi ci dëkk bi ci lañ ci waxtaan ak ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci fànn googu ñu dem bitim réew jënd fa ay lampadaires de dernière génération ay lett yoo xam ne 100 watt la ñu jënd ci lu toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukki lampadaires loolee nag ñu ngi ko amal ginnaaw buñ ci amee ndigalu xalif général des mourides waaye waxtaan ak moom ci projet bi mu jox leen ci ndigal. ginnaaw biñ commandé 1960 lamp yooyu ca bitim réew bañ indi ko ci ay conteneur ci dëkk bu sell bi di Touba mbooleem lamp yooyu ñu déchargé ko fi nga xam ne moo di ci siège Touba ca kanam ngir waajal opération bi nga xam ne moo jëm ci leeral dëkk bu sell bi di Touba lamp yi nga xam ne nag moom lañ jënd làmp la yu moderne méngoog jamono ànd ak capteur yoo xam ne bu jant bi sooyee rek ba mu tàmbalee lëndëm làmp yi taal seen bopp waaye bu bët setee ba mu tàmbalee leer làmp yi ñooy fay seen bopp xalaat boobu li waral waa Touba ca kanam indi ko moo di làmp yi nga xam ne ñoo fi jotoon a nekk dañoo amoon problème horloge ne làmp yi du tàkk heure di fay heure li le nag moo tax waa Touba ca kanam indi xeetu làmp yi làmp yi nag bi mu agsee ci Touba dem nañ yóbbul ko xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir wan ko ko leeral ko li nga xam ne moo jëm ci mboolem lampadaire yi loolee sëriñ bi sant ci bu baax gërëmaat leen waaye ñaanalaat leen ci projet bi nga xam ne moom lañ soobu muy leeral Touba ñu am ci ndam. ñaari junni manqué ñeent fukk lañ ci dañ ci wut waaw ngir seet maam waaw nga ne waaw waaw ci bedd yi waaw waaw waaw nga xam ne ko jaayante nga xam ne bu góor seen ak at waaw waaw lëndëm moom kenn neex ko bëgg kenn bëgg léeg-léeg kenn du ko doyal ah ni muy wax ni mu koy waxee rek jëf ji moom tabarakallah waaye man li may gën a yéem mooy yitt ji yitt ji daal mooy yéem moom moom mooy waar waxtu wu nekk kon mooy loolu li nag mooy taxawaay bi seen taxawaay bi lépp mën nañ ko tënk foofu yitte rek la waaw te yitte nag mooy li nga xam ne moom fu mbir àgg rek yitte ko fa àgg la ginnaaw biñ gisee xalifa bi ñoom kilifay tubaat ca kanam yi liggéey bu ni mel laaj na ñu waxtaan seeg autorité administrative yi nekk ci dëkk bi waaye chef de service yi nga xam ne laale nañ ci lu ni mel moo waral ñu dem waxtaan ak sous bu Ndam ak ki nga xam ne moom moo di maire bu Touba di Abdou Lahad ak agence seeni Senelec bi nga xam ne moo nekk ci Touba kilifa yooyu yëpp rafetlu projet bi jël engagement ne daañ ci ànd ak ñoom ci engagement yooyu mairie bu Touba yëkkati benn oto boo xam ne moo leen di jàppale ci montage bi ak juróom-ñetti nit yoo xam ne ñoo leen di jàppale ci liggéey bi ngir baral ko ak xeex lëndëm gi Touba kanam jël tamit ay employé yoo xam ne moo leen yoral seen lépp ñoom ñëpp ñuy taxaw ci montage bi nga xam ne moo jëm ci lampadaire yi boole kook mbooleem jumtukaay yoo xam ne dañ koy yittewoo ngir mën a monter mbooleem lamp yi bëgg a def ci quartier yi ci opération bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal nag waa Touba kanam profité nañ ci ngir changer mbooleem lamp yi nga xam ne dañoo yàqu woon te bi te yàggoon lool kenn changé wu leen woon liggéeyu projet leeral Touba waa Touba ca kanam ñu ngi ko dooree quartier yi nga xam ne ñoo wër jumaay Touba ji ak mbooleem quartier yi nga xam ne ñoo wër corniche bi dëkk bi tàmbalee leer moo xam quartier Touba mosquée la Daarul Xuddoos Sura Gédé Gare bu Ndaw Kër Ñang gaar bu mag guy mbind xayra njenne paaleen daarul minan marché daaru xuddoos marché okas ndindi tindoo di ak mboolem quartier yi nga xam ne jaar nañ fa ba installé làmp yooyu quartier leer nañ li lee nag jur mbégte ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bi kenn ku ne rafetlu liggéeyub Touba ca kanam ne yéex nañoo def lii ndax leeraay bi bokk na ci li nga xam ne day xeex insécurité bi où la lumière passe l'insécurité trépasse mbokk yi xam ngeen ne leer day dàquk lëmdëm di toxal insécurité di indi sécurité ak Touba ca kanam Touba leer naññ waaye bu kenn fàttani ni seen ñaar téeméer yi la mbokk yi wenn sànni nga jam ci ñaari picc leeral dëkkub leer weddi nag gis bokk ca xool leen yi penku sow bët gànnaar bët Casamance waaye mbokk yi xool taalu jàngu yi nga xam ne làmp tubaa ca kanam bi wuutu na ko ci daara yi ci mbedd yi ñu doxantu ngeen dégg ñi nga xam ne ñoo tax ñu leeral tubaa ci seen ñaari téeméer yooyu yëg-yëg gi ñu am ci ni mbedd yi mel tey ak ni mbedd ëllëg te yéene ji mooy foo tiim Touba foo dox ci biir tubaa mu leer nañ ndax dëkkub leera kon ñu dugg ci mbedd yi ànd ak yéen xool ba seeni ñaar téeméer lan la jóg wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat وآلي وصحبه سوي الصلات وكل من قدمني أو سارا فنجني واغفر له أو سارا وكل من آبني أو مالا إلا يفعل خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا رب يا فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي عسى يا رب العالمين وجل بنائي بناء وافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بناء الاعتدال ولتكفني كيد كل استداء ولتكفني دراسة سيتاني وعلمي الباخن في الأوتان ولتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد والتزفا جملة ما يفسدان يدي وعن دار سري عن نيسوان ولتدخل المسلم في يدي وفي داري وثابتا حب الهادي وفي والما والما ولتكفني جملة ما يعين ومسكني سلي من الفجار وامن العالي بما عن جاري واجل ربي مننا معجلا جالبا مننا معجلا yaa xayu yaa qayoobu kullu ya mujib antal mujib wal kariim wal xariim ilayka waadaka farartu min siwaak fakun bisaaka xaayidi ilaa hudaak وليكن ربا وليا والنصير ولجميع المسلمين يا بصير vraiment ñi ngi sant bu baax Touba ci kanam seenu tàmbali ak seenu mujj ndax bi ñuy tàmbali sewoon na lool waaye Pastef ak dëggal moo tax ñu àgg fi ñu àgg gis nañ ci nag ay réalisation yu bëree bëri yu ñu def yu am solo waaye li nga xam ne nag moom la Touba gënoon a manqué itam bokk ci li nga xam ne man ñor na ma muy wàllu éclairance publique boo xoolee tey vraiment ci wàllu kaaraange am na soon yoo xam ni man wër naa leen parce que man lu may wax damay teg sama bët damay toog ba une ba trois heures ma wër leen mën naa ci wax yu bëree bari mais mbedd boo dugg dañ koy topp ba fa mbedd ma yem potolamp bu ne ba ca topp ñu teg ko ca au lieu que ñu jël ko sax dañuy def potolamp par potolamp loolu nag leer na loolu nag bokk na ci liy jàppale kaaraange dëkk bi vraiment loolu dañ leen ciy remercier di ñaan ñu yokk ko nag parce que def nañ secteur yu bëree bari nag yu bëree bëri ci Touba mais ñu yokk ko ba quartier préféré yi ñoom it gis ci seen bopp. ñun waa marché Ocass ñoo am mbégte bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne waa Touba ci kanam def ngir monter ay lamp leer te it bokkoon na li nga xam doon nañ ko joytu ndax marché bu leeree rek eh, ñi nga xam ne dañuy def ay ñaawteef duutuñu am fu ñu jaar wala fu leen séenee li nga xamante ni loolu mooy eh, dañu daat daw kon waa Touba ci kanam ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di leen fa di ni Touba ci kanam mooy nañ ci ñëpp bàyyiwaat xel di ci di participer wu dee nga ci dagg 1000 francs ndax defal nañu loo xam ne kat bëggoon nañ ko te mënuñu ko te ngërëm li daanaka lépp ci ñun lay dellu rek ndax liggéey bu rafet bii ngeen Euh, ñun ngeen ko defal waaye ñëpp ngeen ko defal ndax nit bu fekkante ne da ko fekk ca lam moom mu waran caa taxawal boppam nga dimbali ko ca kon ameel na la cant ameel na la ngërëm xanaa di soññaat bokk yi bu baaxa baax rek xëy na 1000 francs sax la ñu wax ni mooy sas wi ci murit bu nekk weer waaye nag ku mën fukki junni ku mën fanweeri junni ku man téeméeri junni na nga ko def te xam ni lépp benn lampe bi nga def rek fexe ba mu taxaw fenn mooy leeral fenn rek tuyaaba ju rëy la ci dëkku Serigne Touba bii Euh, waxuma la baatin bi li ci aju waaye saayir si rek da koo jar ci def kati ñaawteef fi nga xam ne wax dëgg yàlla ay sile la ñuy sant ak fekk nit ñi ci kër yi di fekk nit ñi ci place yi ngeen ñëw leeral lii ñoo ngi leen di sant leen gërëm. di sant bu baax parce que lamp yi ngeen def fii ñun ñiy liggéey guddi ñun la gën a arrasé parce que fi mu ne nii mbed yi yëpp dañoo leen de demoon waaye ñu ngi leer nañ waaye ñu ngi leer nañ ñun nag am nañ ci sant bu baax a baax. marché bi demoon na ba nga xam ni sàcc yi sonaloon nañu amutoon sécurité parce que sécurité balaa am rek marché bi day leer te marché bi léegi leer na léegi ñu ngi gërëm Touba si kanam. saa bu timis jotee ba di set heure bu ni ma mën nañ ko toog fii di jàng moom gis nañ ne fii yëpp maanaam lamp yi yëpp poto yëpp benn ci nekk ba ngeen ñëw ba ci daara ji ngeen defi ñaata dootu daara ji ñoo ko defa kon yéen lu muy tekkee mooy yéen daal yàlla moo leen tax a jóg da ngeen di defar te yàlla tax ak Serigne Touba kon loolu moom moom wax dëgg yàlla moom moom ñaanal ngeen seen bopp. avant ñu leen di ñaanal ngeen seen bopp wax dëgg tey jii man nga taxaw ci sa buntu kër di seen tali bi jaar ci station Darou Khoudoss loolu nag nekk na initiative yu am solo yoo xamante ni vraiment Touba ci kanam lii ngeen def ñun loolu lañ soxla ci dëkk bi bu fekkoon ne li ngeen laaj nit ñi yëpp ci leeraayu dëkk bi rek ngeen ko def doy na sëkk. mais tey jii kat boo jógee fii di dem Tindoo di gis ngeen ni mu mel boo jógeen fii di dem Gaar ba gis ngeen ni mu mel nga ñëw fii soowu kër sëñ Souhaïbou bi li wër miiru kër sëñ Souhaïbou bi lamp ya fa njuga kebe defoon man moom laa fa mas a gis te daar daara jooju fi laa jàngee mais tey ji boo waroon miiru kër sëñ Souhaïbou bi tey mën ngaa sànni pusa for kon nag vraiment man de tukki naa dem naa fu bëri waaye fi ma jóge barki démb wallaahi laxasim bi ma ñëwee Touba ko gën a leer. dañuy jaay ba guddi te bu masaana lëndam du ñemee ñibbi suñu kër suñu kër a ngi waaye mos ñoo ñemee génn bu fajaree tam dañuy dem gaar ba dara duñ foo bëgg a seen seen kenn mun laa kar gaar baat ma nga leer nañ. quartier Daaru Minam bi yàlla kontaan nañ bu ma saa génn dañuy guddi di wayaase sàcc yi dañuy dogale ñëwatuñ ci mbedd yi gisatuñ kenn yéen daal ca kaw ca kanam rek. fii ba 28 ak yi kenn ñëwut a génn sa kër tey boo boo daan génn yaa ngi woo ñu la gunge ginnaaw yàlla ak Sëriñ Tuubaa nag ñëw ngeen jaar suñu bi gis ngeen fii fii ba 30 boo xoolee leer naa ñu la def tey fu fu la neex mën ngaa dugg fu la neex mën ngaa jaar. ni ko waral fii sareet dañ fi jaar dem 28 Mataokaas ak Bayal ba te gisoo ko leer nañ la def bu la neexee heure bu la neexee mën ngaa dox gone gu ndaw gi te boo ko yeewoon ko tey da dama wénti tey jënd la day dem léegi-léegi ñëwaat ndax lamp yi leer na nañ moom yaakaar naa na ñun ay ndaw waaye yaakaar naa bañ dalay nekk ci Tuubaa ba léegi yaakaar naa liggéey wax dëgg yàlla mun ñu laax ne la nangam def na fi wala leneen waaye liggéey Tuubaa ci kanam mi wax dëgg yàlla mi ngi soog am moom biñ julee jumaa ji nekku leen fi ba nga ni kon Touba nu muy mel day mel ne panaal kon. dama ne yéen da ngeen a yéex yéen waa Touba ca kanam. mooy Touba Mbal ku ne xam ne Mbal euh, euh, ci quartier yi gën a jege jumaa ji la waa kër Serigne Massamba Mbacké ba dëkke fi ak kilifa yu bari nag waa kër Serigne Fallou ñëpp a ngi fii Mbal euh, mu doonoon foo xam ne jege na jumaa ji waaye nag ni mu waroon a leere wax dëgg yàlla leere wu ne te it leeraay dafay musal nit ci. ay kàccoor ak leneen ak leneen kon ni ngeen ko leerale nii wax dëgg yàlla leerewul woon nii kon nag ñëpp teg nañ seen bët rawatina euh, màggalu Touba nga xam ne fii sareet yeeg oto yëpp fi la ñuy jaar te am na association bu fi ne boo xam ne sax ay xale lañ yu fi dëkk di teraanga dañoo mujjoon di euh, màggalu Touba jotee ñu cotiser euh, seenu ñaq def fii ay làmp ngir mu leer kon lii ngeen def da ngeen ñoo dimbale. ndax dangeen ngeen ñoo fekkoon ñu ci nam na bi ngeen ñëw far dimbale ñu leeralal nu ko ba mu leer kon lii day wane ne rek maanaam liggéeyal sëñ Tuubaa rek am solo ndax mbedd mi Mbàkke Tuubaa yeeg sareet yeeg yëpp bu màggal jotee duñ jaar ci route national bi fii la ñuy jaar nit ñeeg ñëpp fi la ñuy jaar kon bu ngeen ko leeralee mel na ne yéen a ngi jàppale nit ñi ci liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu màggal jotatee fii dina gën a leer ku fi ñëw màggal si dana xam ne kat nam ko bawoon ci màggal gi weesu ak gii di ñëw wuute na. man maa ngi tudd Cheikh Gueye nekk ci marché Darou Khoudoss bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax Touba ci kanam. yàgg nañ ci marché bi franchement mën na wax daanaka suñu ndaw lépp leen ko passé te li nga xam ne moom nit ak nit mën na ko ak nit wax dëgg yàlla defal ngeen ñu ko mooy ay ay ay lumière yoo xam ne des ni daanaka heure bu ndaa wàcc bu ndaa wàcc 19 heures te ñu ngi wàcc ay 23 heures. boole ci insécurité bi daanaka léegi amatul léegi nit dangay toog fii da mën a seen sa place daanaka jëlatu ngay taal ay lampe affaire yi leer na job bi rafet na sant nañ ci bu baax a baax a baax li nga xam ne nag moom lañ jot def ci projet leeral Touba bi première phase bi la rek des na deuxième phase bi bëgg-bëgg tubaa ca kanam moo di mbooleem quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ba ci sancaan ya fépp ñu leeral ko nañ ci ni nga xam ne noonu la ko xalif général Serigne Mountakha ba Bachir bëggee. Touba ca kanam nag duñu yem rek ci installation lamp yi ne dana am suivi maanaam daañu ko topp saa su ne moo xam entretien bi ak saytu gi ngir leeraay gi mën di wéy ci dëkk bi liggéey bu am solo bi nga xam ne nag Touba ca kanam defati nañ ko di ñaar téeméer yi nga xam ne taalibe yi weeru jot ñu ngi koy versé ci Touba ca kanam ne lépp loo xam ne taalibe yi joxe nañ ko dañ koy dugal fu leer naññ Touba ca kanam ubbilaat ay buntam mbooleem taalibe yi fas yéene ànd ak ñoom liggéey bu sell bi muy gën a taaral dëkk bu sell bi di Touba ba méngoog jamono te loolee du bàyyeekoo fenn fudul ci xaalisu taalibey murid yi bul ko waaj nu ngeen bëgg Touba mel ni des na ci yéen weer wu jot kenn ku ci nekk jaayanteeg Serigne Touba ñaar téeméer yow mi am Orange Money defal dièse 144 dièse 621 dièse code bi 20 90 95 sa addiya mën a tabbi ci biir Touba ca kanam misrasmia bi jaayi xayri ma nabaat